mama Selbé tey bi ñu nee divorce lan motax divorce yi bëri ci li nga xamantene mom moy mooy réew mi maman Selbé divorce yi bëri na de ndax sey yi dañ ko dul ñak wala ndax nit ah mais bëri na maman Selbé ne bas tun ak soxnam ci gis nga fi ñu mujjé après divorce bi ci réseaux sociaux yi euh, soxna sey rek soxna sey la soxna sey manka ka man dégg na waxu bas tun man faral na bas cuun effet mhm. ñu jàpp ne que modlo dafa bayyi tout na sanguwul naanul. non non xanaa déggoo waa kii nee nañu nee nañu euh, nee nañu euh, la ñu bàyyi woon yëpp dañ koy commencé waat waa parcelle dégg naa ñu wax loolu. Mhm. ñoo ne ñoom lu ñu bàyyi woon yëpp dañ koy commencé waa ah, waaw muy làmb ji du fo Modou Lo du foy waa des arènes parce que xam na ne Siteu Siteu da koo bëgg te moom du ko nangu mhm. day bañ day bëgg a téye Siteu aussi day bëgg am kon combat bi. ku yaakaar ne xeex du ci am da ngay nax sa bopp dina am xeex te dina métti combat bu métti lay doon. Hmm? heureusement duñ ko teg en direct. a ci seen day métti day métti parce que Siteu da koy bëgg a foqati. Hmm. Euh, Siteu nee na bakkanam la ci teg. Hmm. te xam nga Modou loo tam dina teg bakkanam. kon maanaam <laughs> combat bi du yomba ah. du yomb. keroog dañoo gis ki nga xamante ne moom mooy Sa Touba si open press Modou Lo mu indi li nga xamante ne moom mooy gileem. coow bari gilem lan lay signifier ci ñaan mama gilem de baxna mom gilem de ko bëgg nekk ci kaw rek Gilem mom, Gilem mom lu bax la waaw gilem mom lu bax la mom wax deug yalla gilem mom man mii su may rey gileem damay bëgg nit jë jëm kaw waaw gilem mom wax deug yalla gilem mom baxna mom gilem mom lu bax la kenn ku ci nekk rek lañ la tar rek mom ngay mom ngay mom ngay yóbbu mhm. loolu kay mom kiil mom mm. kenn ku ci nekk la nga xam rek mom ngay def pour sa daan waaw kenn ku ci nekk la nga xam moom ngay def pour sa mbër daan rek waaw waaye lamb ji moom jël dina ci am duñu mat incha allah non nul nul du am jël day am jël jël moom force day am waaw sa doñu ni yi nga wax ah non non nañ bàyyi rek wax naa leen kay li ma gis li ki dess li ki dess yalla subhanahu wa eh? taala mo koy mo koy yeggale man awma droit faral Modou awma droit faral sita mm-hmm. parce que Modou euh am di ko ma ko yoroon mm-hmm. wax dëgg yàlla ku baax la woon ci man ak Aïcha di ko ay saak sax daf ma ko doon jëndal dañuy ñëw indi ay saako ceeb ak kii maanaam li ma moduloo li ma nitu moduloo may ci làmb amul kenn ku ma ko ci may mm-hmm. Balla Gaye saa daanaan ku ma demaandi ko ndokkale da yëkkati ñaar fukki junni mu may ma mm-hmm. waaw yàlla moom daf ma booleeg ñoom mais euh, làmb ji du yomb daal dina métti lool dana métti mais jar na ko nag titre roi des arènes la ñuy bëri ah waaw roi des arènes surtout da koy bëgg a téye Lo day bañ mu dem am na solo ci li rek moom mooy itam actualité bëgg naa ñu wax ci tuuti rek balaa ñuy li nga xamante ne moom émission bi Mama Selbé tolluwaay réew mi li nga xamante ne fi récemment yi bëri divorce Mama selbe tey bi divorce lan moo divorce yi bari ci li nga xamantene mom moy rew mi maman Sylvie divorce yi bari na de ndax sey yi dañ ko dul ñak wala ndax nit ah mais bari na maman Sylvie nag bas cuun ak soxnam ci gis nga fi ñu mujjé après divorce bi ci réseaux sociaux yi euh soxna ci rek soxna ci la soxna ci manka kunka man dig na waxu bas cuun man faral na bas cuun te mhm. fekk dégguma waxtaana wa Ahmed Cissé maa ngi ziar Ahmed Cissé mon frère mon mhm. koy ziaré bas cuun nee du tok yak jabaram moko ci àdduna ndax mooy yaayu doomam te wallahi bi may wax di faral bastuun boobu bastuun waxagul mm-hmm. jaara moo juum rek moo bëgg bastuun di tiitaru ba ñaan baat ñu jégal ko man daal mu toogoon fa moom ma a lool mm-hmm. parce que bastuun xale la yaru na li muy def mën na ko ñëpp koy bëgg mm-hmm. ñëpp koy bëgg boo amee nag loo xam ne xam nga ni lii bo poussé rek wala nga pass rek sa morom ñew jël ne ko coppet jël mhm. manam yow da ngay góorgóorlu ginaaw dundu na fa ba am fa ñaari doom dafa gor rek Anda ak yalla ak yoonent bi rek mhm. mais jaara moo mhm. na ah sans dépense yi jaara rek xam nga bu xulo ay magi bas cuun dem ci kër ga di de manam du len neex waye waron na ñom même bu xulo bas waroon naa jubóog ay mbokki Bastoun hmm. su boobaa dinañ man mën a wàññi loxo Bastoun mu def Bastoun bañu ko hmm. bañu ko mënoon naa am ak moom relation mu ëmb rek mu ngénte doomam bañ koo takk mais dafa bàyyi ñëpp ñëw tak ko kon jaara ma waroon a góorgóorlu waaw jaara juum nga xam ne yow nëbbu ko jaara juum moo def erreur waaw hmm. Euh, ba tey tamit euh, ñu àddu rek ci ki nga xamante ne moom mooy Mame Ndiaye Savon moom itam euh, gis ngeen coow li nga xamante ne topp na ko lu mu jógee rek dem si leneen gis nañ bi ci mujj di problème ak yaayam yi nga xamante ne am na ko ñu ne déet ne waaye mu demaat amaat amaat problème ak engagé ñu gis ñenn ñoo xamante ne ay ay ay ñaankat wala ay soi-disant seetkat la ñuy woowee seen bopp dem nañ bay génn naan na moytu li nga xamante ne moom mooy coow lu bëri yi nga xamante ne mi ngi koy def ndax baaxul si moom maam Ndiaye man tere naa ko pour mu li ko dal buum ko dalaat sûrement déglu na ma maanaam euh, du ma tontu sûrement mais euh, li ma ko wax na ko def mu seet ba xam euh, yaakaar naa dina gën a baax bu jëlee rakam bi bu jigéen bi ubbil ko place investir ko jël rakam bu góor bi investir ko day gën a yaatu jël kër def ci turu yaayam may ko ko yaayam nekk ci ak ay rakam mom bu ko nexé mu jënd fukki kër dëkk ci du am problème man lu bax la ko yéné lu bax parce que wax ju bari ji ab saay-saay mën naa ko dem yakal ko lu yakal nit mo gëna gaaw lu may nit bayré mm-hmm. fi Sénégal la man bu dé man dong ah wax dëgg yalla man duma def mam jaay dara ndax jottawul ak man dara xana yëkëti diiw may ma diiw baangi ci biir mm-hmm xalé yi dama amone gan gu joge Touba hmm. mu won fi am doom noppalu si fi ma jox ko mu ne ma yaay may ma keroog defal vidéo bo bu <laughs> TikTok hmm. maam sa bom dama ko fecc génnewu ma ko dama ne xalé yi bu ko kenn genn mi ngi fi ci sama portable manam hmm. kon man bañu kon manam na gën gor góorgóorlu mu lu mu séq ak seen wa kër man mi limay daj mom daju ko coono bi ma daj suma ma ko waxe da nga nit ki faaw nga nite rek daa juum rek mm-hmm. mais xam naa ne incha allah dootu ko dalet mm-hmm. sûrement mm-hmm. ndax dégg na li ma ko wax na jël rakkam bu jigéen bi ànd ak moom Chine woon ko yoon bi xale bi dina dem bay demal boppam alal ji day gën a yokku ndax fal awo bu so moom mu wax wuy si na ko soxorew ma ko de bugguma ku ko def dara bugguma ku ko wax dara yaayam waru toog ba yaayam di taxaw di expliquer ay détails ay noonam di ci jaar nit ki mën na laa reetaan nga yaakaar ne bëgg na la fekk bëggu la ñu topp maam Ndiaye ñëpp seen intérêt rek moo leen fa bàyyi bu fekkonte ne maam Ndiaye amul lu mu sol kenn du ko invité soirée diw ak diw ak diw ak diw waaw seen intérêt lañ ko toppee na xam loolu mu jël Kumba ja teg ko ci wetam ànd ak moom siin ñaar yoon ñett yoon ñeent yoon won ko yoon bi investir ko jël sa xir investir ko ci kàttanu yàlla jël ko tabax ko ba mu yegg jox yaayam bokkook ay rakam waaw jël auto ci auto mi may yaayam utal ko chauffeur wallahi bu nekkul milliardaire xaj bu ngeen gis tudde len yeno mako lu bon c'est ma fii diwum yaangi fi man na la ko won sa bom yaangi fi man na la ko won da di man sama xéssal duma xéssal tout temps xéssal na plus de 30 ans dama xam xéssal buñ ko fi wax ay affaire diw ma gis ñu xeex xeex dama leen crème de visage bu wax dëgg la te mën naa wax ci diwu mam Njaay lu bare bare bari wallahi mën naa ci wax lu bari bari bari ndax xeesal nu ma mënee togg bu jën noonu laa mën a lu ko raw laa mën a defare xeesal xeesal naa plus de 30 ans aw ma problème ngi nii dara tous aw ma benn kuy cere ni dara non non aw ma loolu solo yaa booy nag eh, bala lañuy jéxal émission bi rek waye bëgg nañ nga baaxee ñu nak sarax yo xamantene mën nañ ko def suba jam ngir képp ko xamantene mi ngi génn di jëm fi nga xamantene ne moy mooy stade mu mëna dem ci jam ñëw ci jam bala ngeen génn seen kër yeen journaliste yi jël leen glace ngeen tok ngeen jaar ci mbeur yi tamit pour jam mm-hmm. kenn ku ne bala mo génn kërëm na soti glace mm-hmm. mu def ci carton yalla jam dem jam jam jàmm jàmm yi ñep supporter yi yep rek mm-hmm. nañ soti ndox soti glace jam rek la bëgg man réew mi dama cey bok am ci soxlo ma dem benen réew musuma dem États-Unis ni France ni fenen ak fenen déedéet man taalibi seigne touba la yam Sénégal gi moma gëna musuma tukki budul dem makka kon manam luma am rek Sénégal mako gëna gënal jam rek inshallah mama sel betay ban fierté lay am su démé ba bis yi ñu naan bis yu mag yi nati mag ñoo si dé su démé tay ba ñu ne combat royal xal yépp dem ci mama buñ né lu wara xew ñu né nañ seeti ji maman Selbé maman Selbé nekk def liggéey bu am solo tay ba mu égg au sommet ba ñu jëgleel ko li nga xamante ne moom titre bobu ban ban fiété lay amna na benn kaye bu nek ci lal bi mm-hmm. euh, euh, après dina ko dina ko indi bu ñu la sorcière de reine lañ ma tuddé man dama ko yàgg sét nak mm-hmm. vraiment euh, bi may wax Balla ak Yékini mm-hmm. fekk commencé na sét bu yàgg 2002 ca coupe du monde ba dama ne leen bu ñu eh, eh, deful faaru xar lakk ko saraxe dañuy gañe te boobu yoruma dara mm-hmm. su ma yoroon dama koy génne pour ñu am ko mm-hmm. gis nga suñu coupe bi coupe d'Afrique bi sama xaalis laa ci def ba ne leen quart de finale lañ indil coupe bi teg ko sama kaw lal bi mm-hmm. la ma am yëpp amul benn autorité bu ma may junni yëpp maa ko ci def xam-xam la boo xam ne dama ko judduwaale li ma jàng nag mooy togg ceebu jën bu la neexee ñu tibbal la nga lekk dama mun togg loolu laa jàng mais lii don rek de jël yàlla la àndal rek sama ndigg lii loo hmm. neexee nga làmb amul dara hmm. takkuma benn téere sama kër wëral amul téere hmm. lépp nag mi ngi ci ci sama jëmm ji waaw kuy xool jigéenu wérul nekkoon lii ngay jur mu juddu nekk loolu loolu moom yàlla la rek waaw yàlla rek sama lépp yàlla la Mm-hmm. ginnaaw ba nag gis nañ ne ay élection jaaroon na fi jeex na euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si gouvernement yi am nañ majorité lan nga ñu mën a wax ci li nga xamante ne rek moom mooy ëllëgu Sénégal ndax ba nag ñi ngi ñaxtu naan euh, ba tey metti na de dara changé. non mu metti ñi fi jóge ñoo yóbbu alal ji euh, ñi fi nekk nañ leen may seen seen jàmm pour ñu mën a liggéey ñoom ñëwuñu rek fekk fi alal ju ne gàññ mm-hmm. jotaguñ fee liggéey juróom-ñaari weer lañ fi am bay dugg si juróom-ñett. ne leen sénégal yi ñaanal comprendre len ta xamne ñom ñu ngi dogo a ñom taxu ñu dëkk bi naqari dañ ko fay fekk dañ fay fekk saako ceeb ñeenti junneeg nangam dañ fay fekk diwlin ñeenti junneeg nangam dañ fay fekk benn tomate bi doon jar 2500 presque 4000 la dañ fay fekk kilo jën bu baax jën bu weex kilo 8000 9000. <coughs> kon gouvernement bes bi ñu dara di ñaan président de la république xaritu Bara Ousmane Sonko xaritu Bara mon frère nañu na euh, Bassirou euh, Diomaye Diakhar Faye le plus jeune président de la république bi billahi wallahi taala bi mbaxanaam mu gudd moom ci kàttanu yàlla Sénégal dina mel nox dina fi liggéey loo xam ne kenn musu ko fee liggéey hmm? mbaxane rek laa ko ñaan ñaanu ma ko dërëm ñaanu ko audience nay sol mbaxane hmm. nay sol mbaxane rek te ku baax la hmm. parce que gis naa ni def papaam mu mun naa won ne papaam euh, moo ko jur waaye moom mooy président papaam ni mu bëggee jóg dafa sukk ci kanam papaam téye papaam kon maanaam yel na gudd fan président yal na nga gudd fan ànd ak wér mm. Ousmane Sonko ah alhamdulilah na liggéey ndax moom ëllëg ñu ngi séentu nekk président de la république ñu koy xaar incha allah maa ngi koy xaar man mm. moom euh, c'est mon frère. nga mm. dëgg yàlla. non xaw ko sax xaadim sàmm xam naa ko lii rek ah. euh, euh, xaw ma lan communicateur traditionnel la euh, amoo leen benn ah, na comme amoo leen problème du ma si wax de xuloowu leen kay ah kay am fa moom waaw lan la nag dara dara <laughs> mi ngi noonu mbokk yi kooku mooy maman ma ah. seede rek nee na moom man damaa mën a seet man la man la gëm te effectivement wax dëgg yàlla Euh, yàgg naa dégg Selbé di wax naan nangam ak nangam ak nangam bëri tafaatin ak Bombardier dama waxoon ne euh, deret dina tuuru Père Xaadim wax deret deret du tuuru na woo ko ne ko deret dina tuuru ba taq ci ripp am ci lool la rek mm-hmm. mais man <laughs> am na solo <laughs> kooku mooy maman Selbé Ndom macha allah comme ni ma ko waxee woon rek moom suñu yaay la waaye suñu xarit la dañ koy jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi di ko gërëm di ko sant ndax saa buñ fi ñëwee lu mu ñuy wax mooy da ngeen di lekk lekk baa ngi nii comme ni mu ko waxee mën na ko togg lool ba mu neex waaye mën na ko joxe mm. ñu koy ñaanal bu baax a baax moom itam suñu borom defal ko jaama bu baax a baax may ko tawféex yu bëree bëri mm. lépp li nga xamante ne rek bëgg na ko su ñu borom daal di ko koy defal gërëm ñëpp sant ñëpp waaye nee leen du jeexal te du gërëm ki nga xamante mom moy mam Cheikh borom jantal Mara makeup baayu euh, Cheikh yi seri Yacine bu ngeen gisee sama kanam gi di yañ mom mo si jaar borom euh, Mam Cheikh savon borom produit yi nga xamantene ne macha allah lu mu jaayul baxul dem len ngeen sété ko d'ici là way len di top Medina TV ci programme yi. partager abonner liker ak si euh, TV su ko defé lepp lu am ci information ñu ñew ci ak yeen ci numu gëna yaatu maman ñu bayal nga waaw waaw di sant yalla rek di ñaanal Senegal Jam bi ñu bëri ko ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ki yalla wara jox ndam bi jox ko ndam li waaw xadim sam nak ne ko man amna kenn ku nekk France mom da bëgg ñëw de maa nga doon junjun faalé wo ko bëgg a ñëw ne ko eh, jéggal na ko amna ah. ku nekk France mom lay xaar mom ngay xaar do wax ak wa Sénégal daal non non non man mel ma non talib sëñ Tuubaa la bëgg bu yag la rek ah. waaw bëgg bu yag war na ñëw gaaw nag non non non waaw yalla baxna bu ñëw rek dina la wo bu ñëw ñu ñëw waaw waaw loolu mënu fi ngeen ñëw yendu ah. kii mooy togg michu yi. Eh, jërëjëf yaa eh, <laughs> booy merci beaucoup